ma jigéen tey li ñuy ñëw jël comme ñamali incha allah xam naa benn bi dañ koy brosser leeral ko rek ginnaaw bi Sénégal yu bare bari lenn ci Sénégal yi bëgg a nëxal xel yi doon wax ni kat ay la yéwén dañoo sosal sëriñ bi wax ni kat dafa jox groupe Walfadjri cinq millions te du dëgg am sax ñu génn di def ay video Moustapha Diop mi nga xam ni fekki woon na yëfi démb defe naa nettali na affaire bi pour wane ni e, ñoom ña demoon demoon nañ ba war a génn Touba ba war ñibbi damaa waroon teg élément bi sax mais garaawul dafay jël temps bu bëree bari pour expliquer ko ku mu sox ko soxla nga dem ci édition spéciale démb bu Walfadjri dem nañ bay génn Walfadjri ñu woowaat leen ni leen kaay leen ah bay génn waa Touba sëriñ Mountakha euh, wooluwaat leen ñu delluwaat kër sëriñ Mountakha biñ delluwaatee sax sa euh, Moustapha Diop nee na maa ngi laam-laamee ndax ñun baa duñ fanaan Touba parce que dañoo dugal oto yi ci biir ginnaaw ba bi ñëwee toog nee na am ku ñëw yor enveloppe bu kaki daal ni leen sëriñ bi moo leen jox euh, juróomi millions yi ñu jox ko Oustaz Assane mu jox ko Cheikh ñas mu jox ko comptable am defe naa mbiri noonu la demee sëriñ Mountakha kenn yaakaar naa ñemewu ko sosal ci réew mi rawatina ku toll ni Cheikh Niass di doomi kilifa ànd ak ay kilifa dem ca Touba. Mm-hmm. kon loolu na leer euh, gars yi ngeen xam ne boobu du jàll sëriñ taxaa moom dugal na alalam fii ci Walfadjri kon boog dafay gën a barkeel sëriñ Moustapha Sy njiital Moustarchidina wal Moustarchidaat eh, yëkkati na ay kàddu ginnaaw bi mu wootee woon Tiwaawan ci kiyam bi wax na ci yu bare bari nag ba tudd Sonko rendre hommage Cheikh Bara ci jàpp gi ñu ko jàpp wane ne ñu ko teg ñun ñëpp lañ ko teg eh, wax na ci Barthélémy Dias it ni nañ ko jàppale buñ mëtuwul woytuwul dinañ ko li nga xam ni moom mooy eh, yàqal maanaam daal dinañ ko naxte ci lañ jëm waaye balaa loolu euh, ma jigéen sànq maa ngi doon wax groupe Futurs Médias di leen gërëm ci acte yi ñu def démb ëmm mi ngi may wax léegi ni ma waa Zik FM ñoom it def nañ ci édition spéciale ñoom itam taxaw ci taxawaay bi kon ñoom itamit merci beaucoup jàngeen jëfati ci biir loolu itamit journal yi nga xam ne dañu waxoon léegi sénégalais yi comme état bi tëj na fële bañ ñëw di jënd si journal yi fii journal yaa ngi fi ku ñëw ñu jaay la ko ñaar téeméeri dërëm ba tax na ci ndigalul alaaji Sanjogu mii nga xam ni moom mooy itamit euh, boroom euh, solution mooy njiital solution ànd ak équipe bi moom itamit euh, jël na dogal jëndal képp ku nekk solution ab journal ñu ni deetawaay alaaji def la yonent bi alayhi salaatu wasalaam defoon ci ak tabaski maanaam jënd am xar daal ni xar mii kat maa koy tabaski xar mii jëndal naa ko képp ku amul tabaski alaaji becc cent mille francs ci solution ni daal teg nañ maanaam dugal nañ ko ci liggéey bi képp koo xam ne waroon ngaa ñëw groupe Walfadjri te mënoo ñëw cent mille francs yooyu jàppal ni jëndaaleel nañ la kon ba groupe solution génne nañu ñaar fukki junni jëndal ku nekk biir solution yëpp gannaaw baat ku mënta ñëw te amoon yéene solution jëndaale na la ma jigéen macha allah son son yi bu euh, rafet na euh, yal na yàlla euh, ful ko def ko mu gën a barkeel ba leneen lu ngeen di suuf bu rek yàlla yombalal leen ko ci barke Seydina Mouhamed waaw li nga wax léegi nag ci ci mbirum Walfajiri ak ñoom Moustapha Keroog bi ñu demee Touba son yi bu Sénégal moom mm, kenn mënu fee def dara lu baax ba doo gis ñenn ñu bëgg a tilimal mbaa ñu bëgg a salteel mhm. loolu mënul ñàkk sëñ bi moom Euh, taxawaayam ci biir réew mi ñëpp seetlu nañ ko état mi ëpp doole sax mi nga xamante ni nii dañ ko teg pour muy régler problème yi sax ba mu jàkkee ca corona ba ñëpp xam nañ ni sëñ bi daa wàññi ñaa euh, cent millions teg ko ci kaw deux cent millions mhm. autant teg ko ci kaw table bi kon mhm. donc loolu su ko mënalee état nag mi nga xamante ni nii mooy yilif ñëpp jiite ñëpp war a régler problème yëpp bu ko joxee waa Walfadjri loolu jàpp naa ni euh, nit waru si am lenn loo xamante ni nii war na ko cee wax mhm. c'est bien nag ñuy leeral parce que bu leeralul woon rek amaana am na yenn xel yoo xamante ne nii dinañ leen jéem a naxal moo tax nag ñi ngi sant bu baax sañ sëñ Mountakha yàlla yàggal ko fi mu ànd ak wér lool leneen li nga wax nag ci sëñ Moustapha ah, Sy mu ni bi nañ ko dimbali waaw parce que nag euh, ci yoonu yàqule la jëm. buñ ko mhm. jàppalewul rek du baax. baax baax te li mi moom dafa foog ni moom moom moom moo ëpp xel ñëpp wala moom moo xam lépp. Mhm. nit soo nekkee ci ab mbooloo ngay ànd ak ñoom bul demee sa xelu bopp parce que booy demee sa xelu bopp rek. ni mhm. nga dëkk ci njuumte looloo waral nag xam naa mu jàpp ni buñ ko dimbaliwul ci lii mu nekk parce que peut-être am na lu muy ragal wala lenn loo xamante li ñuy naan nag ragal yëpp yàlla la. gis nga nit soo nekkee fenn rek dëggul mais boo commencé di jiixi jaaxal rek loolooy indi nag. nga indi sa bopp loo xamante ni nii comme li nga ma daan wax rek. bu ah. dugg ci kàmb gi. looloo ko nar a daal. jooba jubba doo dugg ci kàmb yow. <laughs> ayca alaaji. waaw macha allah kon bala ngaa dugg ci loolu mu mel ni rek kon mm. solution ni ma ko waxee noonu. Mm-hmm. génne na loolu le daal di jëndal mboolem ku ne ca boutique ba. Mm-hmm. waaye jëndaaleel mboolem ku amoon yéene te mënut a ñëw. waaw loolu muy ñaar fukki junni yooyu. Mm, lu ñu war la. Mm-hmm. bu ñu amoon lu ko ëppit war dañ ko war a def. waaw parce que Walf moom mooy ñun ñooy moom. waaw euh, euh, jàpp naa ne loolu mooy li nga xamante ne bii mooy li war a ne. Mhm. lu war a ne moom bu newee euh, soxlaatu la kii quoi parce que lu war a ne la daal. waaw waaw donc ñi ngi ñaan rek lépp li nga xamante ne bii dal na ci kër gi. Mhm. mu tegg ko ci jàmm ak salaam. amiin incha allah parce que defe naa ni Walfadjri moom. Euh, mhm. askan wi wan nañ ko ne ko. yëg nañ ni. Euh, yaay sunu télé. dëgg loolu nag ñu koy rafetlu di rafetlu aussi tamit li nga xam ni démarré nga ko muy euh, média yi nga xam ni. Mhm. jóg nañ aussi tamit ngir wane seen bopp ngir gën a boole seen bopp parce que. Mhm. parfois dañuy def benn mbir pour isole waaw kenn. Mhm. maanaam dafa mel ni dañu bëggoon a isoler Walf. mais loolu boo seetee depuis quelque temps presse bi dafa mel ni dañu xaw a wasaaroo. loolu nag mën na tax presse bi ximmiliku. au lieu que léegi nag ñuy nangu kii mais ñu far bennoo. Ah. te donc euh, dafa mel ni loolu moo commencé di feeñ. dëgg la gars yi di wane seen solidarité fu ne. Mhm. loolu c'est très important. Mhm. Euh, ñu xam ni presse bi yëpp benn la. Mhm. dafa war a nekk loo xam ni kuñ ci laal rek. waaw ah. ñëpp yëg ni. du kee lañ laal waaye man lañ laal. man laal dëgg parce que bu fekkee ne mbir mi demee noonu parce que loolu Sidi Lamine da ko fi defoon ci ay jamono mooy bi ñu laalee. Sud FM Sud FM. mu wane ni man lañ laal bi ñu fi teewee ma jàmbal. ñu wane ni. presse lañ laal. si Lamine amee ca taxawaay bu rafet. Mhm. je pense que si ma jàmbal war naa fay naar bi. xorom dëgg parce que taxawaay bi nga xamante ne bii moom la ci si mm. Lamine doon taxaw. moom dem ngay jàmb rek. si Lamine lim doon kii xeex. Euh, kii la doon xeex maanaam. liberté de la presse voilà li mu doon xeex pour ñëpp la. Mhm. jàpp na ni bu ñu laalee kële laaluñu kële moom lañ laal. dëgg la parce que jàpp nañu ñoo bokk lenn li ñuy def. dëgg la presse bi lenn la. kon waruñu nangu kenn di leen diviser. Hmm. di wane ne ñii ñoo gën a lii ak ñee ñoo gën a lale. loolu bu ñu ko nangu. Hmm. te donc defe naa ni lii mi ngi leen di boole te loolu yal na suñu borom euh, def mbir yi gën a continuer. amiin allah. Ah, leneen li ne nag. xam nga euh, man euh, dafa am yoo xamante ni. Hmm. dafa moo tax gis nga politique dafa doy waar. waaw ah, am na ñoo xamante ni bii tey. Euh, fi ñuy waxee. mooy ñoom le fait que. ñu ne état am na problème ak kii. waaw Walfadjri hmm. léegi dañuy ruube. léegi buñ nee sëñ bi Walf jox na ko. Hmm. nañ xam ne Walf duggut ci ay politique. bay jël sëñ bi di ko waxal lu amut. déedéet comprendre nga <laughs> donc loolu waxi caaxaan la. Moussa daa baax rek di di leen sax tontu. Hmm. mais nit ñi xam moom xam nañ ni. Walf du joxe xibaar daal di wax ne sëñ Muntaxa jox na. nangam groupe bi te amut. waaw dëgg la loolu moom Walf du ko def. Mhm. ñemewuñu ko. déedéet donc je pense que ni mais ñenn ñi moom dañuy dugg pour jeexi jaaxa borom xel yu. nëx yi mhm. ñenn ñi commencé di ko gëm ñu mel ni ñoom mesere. waaw Assane mesere. am na ñu ma envoyé mu naan ma kii <laughs> ci kër ga la nekk nee na fekke woon na jotaay ba. <laughs> xaw nga xaw ga xam nga moo tax di ko Moustapha expliqué baax na wane na ni dem nañ bay dem. donc ñu woowaat leen xam naa kooku daa fekk wut woowaat ah. looloo tax moo tax jotaay ba daa tas mu dem mais dafa waroon a xam rek ne hmm. Walfadjri ñeme wu ñoo wax ne sëñ Mountakha jox na leen nangam te joxul leen ko donc loolu di lu am solo ñuy sant sëñ bi bu baax a baax ci taxawaay bi mu taxaw macha allah du wal fu la ko njëkk a defal defal na ko kii comme ni ko ma jigéen wax corona ba defal na ko réew mi hmm. Euh, parce que état bi mooy réew mi. dëgg la defal na ko réew mi bi jafe-jafe amee mu yëkkati ñeent fukki million daal ci teg. Mhm. gis nañ yu bari yoo xam ne. def na donc deux waa deux cent millions waaw ma xam nga ci olof ñaar téeméer <laughs> ñaar téeméeri millions. waaw <laughs> ayca ah, <laughs> ah, yëkkati ñaar téeméeri millions. macha Serigne Moustapha Sy yëkkati nay kàddu joxe xalaatam ci Barthélémy Dias. waaw xam nga Bart euh, moom laa la wax démb ne la sëñ Moustapha. Mhm. Euh, dafa gis rek defe naa li nit ñu bari gis. Mhm. Bart fi toll nii. wax naa la ko démb ne la Barth yorutut mbalaanum kiiraay. Uh-huh. Barth fi mu toll nii tey. Uh-huh. Eh, day mën a wéy ci ndigalu président Macky Sall rek. Uh-huh. parce que bu ci wéyut. maanaam amatul protection quoi man ni ma gisee Barth fi mu toll nii. Ah, loolu xam nga Barth bu njëkk ba. Hmm. danga doon dégg Sonko di wax ne. Eh, Macky Sall Barthélemy moom mooy ki nga xamante ni mooy jiite mairie bi fii ba nàngam yaa ngi dégg waaw di wax ni bu ko nangoo ñu nangu lii waaw maanaam amoon na protection mais Bart fi mu toll nii. dugg na ci jeu boo xamante ni man jàpp naa ne yoratut carte yi. ah waaw fi mu toll nii moom dafa bokk sax ci ñi ñuy dox. maanaam dafa mujj doon carte. boo xamante ni peut-être buñ ko doxaloo. pourtant mi ngi xiiru ba tey de. ah non xiiru buñ ko doxaloo fu mu warta dox fan lay xiiru. xiiru xiiru kay war na yàlla mi ngi xiiru ba tey waaw fan lay xiiru. maanaam ci état bi mi ngi mi ngi wane ak taral jëm ci état bi. ah taral ba kañ la waaw. ah diglu woo Bart keroog vidéo bi mujjee def posté keroog bi boo yëngal déggoo ko. yàlla de. waa ñëwal saa. waaw en tout cas daal. Euh, na déglu bu baax a baax conseil kilifa googu. macha allah parce que mag la mu xam. ni réew mi di doxee. bu ko waxee lenn li rek. Hmm. am na lu mu gis. donc Bart na jéem a xoolaat bu baax a baax. jërëjëf hmm. euh, alaaji euh, da nga fee digge woon bee mag kii kii ne ci keppaar gi mu tuddati kii ma jigéen dimbali ma déedéet maam eh, xam na ki may wax keppaar gi waaye ngir yàlla message leen ma du maam biram du Moustapha Diop du Pam Maxtaar waaye di gaa yi message leen ma tur Pape Sané xamoon nga ni di tur bi dina ñëw <laughs> alaaji mii di ko digoon biee màkk <laughs> ñeenti at ci ginnaaw démb nag nee ma <laughs> sama biee màkk ba fii ba ba may am quatre-vingts ans du ma ko fàtte Pape Sané nee ko nee ko bu ma yoroon billet màkk ren maa nga màkk <laughs> danga naan ko c'est-à-dire bu yoroon billet màkk ren ma nga màkk waaw dool lii Pape ñu ngi koy nuyu dañuy bàyyi xel ñu ngi koy nuyu ak waa keppaar gi <laughs>